lu tax ma jël décision dakkal suma participation ci processus électoral bi du dara lu dul que processus bi ci anam yi ko état du Sénégal euh, nar a tëggee nekkul li nga xam ne wàccoon na ak ponk ak chart yi nga xam ne moom la démocratie teg euh, tey gis ngeen ko nu mu tàmbalee déjà Euh, maanaam mbir mi lu mu doon fàttali moom mooy euh, tirage wu loterie wu Lonase yi euh, maanaam ussier bi nga xam ne day taxaw di génnee au hasard loolu tey dafa waroo ak li nga xam ne moom la yoon teg maanaam sécurité juridique mooy looy dugg manam foog mu am ay règles yi nga xam ne ñoo ko lal règle yooyu nga mën ko xam ba laataa nga cee dugg nga mën a natt sa bopp non seulement règle yooyu amut mais eh, état du Sénégal ñu ngi doon njort ba sànq ci suba que dana nangu euh, joxe en tout cas fichier électoral bi euh, pour ñun candidats yi ñu mën a natt euh, suñuy parrainage yi nga xam ne moom la ñu am xam ndax baax na wala baaxul laataa ñoo dem conseil constitutionnel mais loolu état du Sénégal daf ñu ko bañal mais gis nga ci même moment boobu tey état du Sénégal euh, candidat moom daf ko sécuriser parce que daf ko dugal ci benn euh, logique bi nga xam ne maanaam. Euh, parrainage des élus lay démé tay bu nekkoon même centième position du am doublon parce que seeni élus ñom xam nañ len du ñu euh, parrainer keneen lolu motax mat ñu ne tay déjà système bu ñu teg dafa nek système bi nga xamné euh yemale wut mais système bi nga xamné euh, day favoriser candidat bu pouvoir bi et que ñun tay duñu nangu dugg ci benn mbir bi nga xam ne effectivement euh, leerut et que suba tay lolu dañ ko nara utiliser ngir en tout cas candidat bi nga xamné mo nara genn ci pouvoir bi euh, am ablay euh bi nga xamné mom lay justifier élection moo tax ñu jàpp ni effectivement euh, mbir mi dañ koy dakkal. léegi ba nu dakkalee sunu participation dañu dal di jël aussi benn recours jëbbal ko conseil constitutionnel euh, lu nu koy laaj moom mooy tey. Euh, mu appliquer suñu constitution suñu article 98. dafa ne traité yi nga xam ne moom la Sénégal signé ci CEDEAO yooyu tey ñoo ëpp gëdd ñoo ëpp maqaama dogal bi nga xam ne ministre de l'intérieur def na ko et que état du Sénégal sañta bañ a jëfe dogal bi nga xam ne jóge na ci CEDEAO parce que moom moo ko xaatim euh, tey nag euh, la ñu jëbbal recours bi Euh, yoon lu mu prévoir moom mooy ci juróomi fan yi di ñëw conseil constitutionnel war na ci addu léegi nag ñu ngi xaar di xool ban décision le conseil constitutionnel nara génnee en fonction effectivement euh, résultat wu audience bi euh, danañu xamle aussi ban conduite en tout cas la ñu nar a tenir pour wéyal xeex bi. J'ai décidé de suspendre ma participation au processus électoral pour la présidentielle de 2024 euh, pour la bonne et simple raison que nous avons espéré jusqu'à la dernière minute que l'État du Sénégal allait revenir à la raison, euh, c'est-à-dire permettre aux candidats de pouvoir disposer du fichier électoral afin de tester avant le dépôt la validité des parrains récoltés. L'État du Sénégal n'a pas voulu le faire. Ce qui fait que on est embarqué dans une compétition où nous candidats, on n'a aucune maîtrise de la rationalité qui prélude à cette compétition. Et l'exemple le plus éloquent est ce matin le tirage au sort. Le tirage au sort qui détermine l'ordre de passage euh, des candidats euh, de contrôle, devant la commission de contrôle. Cela démontre effectivement qu'on a mis de côté le mérite et l'effort individuel déployé par ces candidats pour avoir ces milliers et des milliers de parrainages pour effectivement nous soumettre à un aléa. Donc il n'y a pas de rationalité. Du moment où il n'y a pas de rationalité, il n'y a pas de sécurité juridique. Pour toutes ces raisons, non seulement nous avons décidé de suspendre notre participation, mais nous avons aussi saisi immédiatement le Conseil constitutionnel d'un recours en exception d'inconventionnalité pour écarter effectivement l'arrêté du ministre de l'Intérieur qui ressuscitait le parrainage, mais également la décision même prises par le Conseil constitutionnel pour organiser le contrôle du parrainage. Euh, le Conseil constitutionnel devra effectivement euh, répondre euh, par rapport à cette problématique, juger en tout cas la requête conformément à la loi dans le délai de cinq jours prévu dans le cadre du contentieux électoral de la présidentielle. Je précise que le candidat du pouvoir, vous l'aurez remarqué, bien qu'il soit euh, à une position de 68e, euh, cela ne l'expose à rien au risque de doublon. Bien au contraire, du moment où il a choisi d'être parrainé par des élus, mais il n'y a pas de risque de doublon, encore moins effectivement de euh, d'aléas en tout cas. Euh, c'est pour toutes ces raisons que nous estimons que la compétition est dès à présent déséquilibrée, si ce n'est déloyale, parce que le candidat du pouvoir est à l'abri de tous les aléas, alors que les autres candidats effectivement sont soumis à un sort dont ils ne maîtrisent pas la rationalité.